tey jii li ñuy def tey jii ci marché bi nga xam ne warul am sax parce que dafa war ci yoon bi et conseil constitutionnel dellowaat na euh, droit fi nga xam ne fa la war a nekk muy état de droit mooy démocratie yaakaar nañu donc président de la République dina respecter décision yi nga xam ne conseil jël na ko ba ñu def élection yi à temps réel Sénégal am changement te di ma ko waxee léegi rek changement boobu nekk changement boo xam ne nii dina bénéfique populations de notre Euh, ban date ngeen di jàpp ginnaaw li nga xam mooy conseil constitutionnel euh, wax na ni les autorités compétentes nañu organiser élection yi waaye yéen ban date moo leen euh, arrangé mooy première laaj deuxième bi mooy côté financier économiquement ñaata ngeen dépensé à ah, mun naa wax 48 heures sax mais à quelques heures des élections ñu ñëw ndiinal le président de la république bi génnee décret bi nga xam ne nag wax na leen ni bi ngeen bàyyi ko ba nouvelle ordre waaw nga date bi ñuy proposé moom le 2 avril président dina passation de service ak nouveau président bi ma yaakaar ne Malick Gakou lay nekk euh, beneen ba ci des euh, ci dépense yi moom xam nga élection présidentielle kenn du ko préparé ci benn fan ñaari fan balaa élection bi déjà di nga dépensé xaalis bëree bëree bëri parce que élection noonu lay demee da koy pare ay at da nga koy pare ay weer kon ak yow du yow rek ak say équipe kon nag donc dépensé nañ xaalis bëri waaye ak lu ci mën a jar na ko parce loolu amul solo li am solo mooy euh, nañu def élection yi Sénégal yi tànn président bi leen neex bu ko defee ñu liggéeyaat Sénégal defaraat Sénégal parce que loolu Sénégal yiy xaar. ñu ñëwaat si euh, Moundiaye Cissé yi mu xam nga am na ñu bëri ñuy wax ne le 3 moo gën am na ñu wax aussi ne le 10 maximum parce que bu ñu bëggee def passation de service le 2 avril temps matériel bi foog ñu am ko loolu moo tax ma yaakaar ne loolu yëpp ay xel la yoo xam ne dañ koy sotti ci waxtaan bi bu neexee yàlla li am solo mooy waxtaan boobu lu mu mën di jur nañu fexe rek ba élection yi tenir ko jour bu nga xam ne nii dañu permettre le 2 avril président d'habitude de passation de service ak le nouveau président ma yaakaar président opposition lay voilà je voudrais remercier le peuple sénégalais pour sa combativité sa détermination, son engagement et sa mobilisation à défendre les élections. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs euh, à son élection euh, qui n'ont ménagé aucun effort pour rassembler les Sénégalais autour de l'essentiel. Et aujourd'hui, l'essentiel pour les Sénégalais, c'est l'organisation d'élections transparentes, démocratiques et inclusives. Je pense que c'est ce combat-là qui a porté le fruit et qui a fait que le Conseil constitutionnel a fini par donner raison au passage que je suis le premier candidat de l'opposition à avoir déposé un recours au Conseil constitutionnel. Donc c'est une satisfaction énorme que j'ai d'avoir cette victoire avec le peuple sénégalais, avec l'ensemble des candidats de l'opposition. Et nous espérons bien évidemment que le prochain président du Sénégal sortira de l'opposition. J'ai dit que le président de la République rendez-vous d'un homme avec son peuple. Dans ce cadre-là, je dois dire que a pour d'industrialiser le Sénégal. Mais au-delà de mon programme, j'ai dit et redit encore une fois que le prochain président de la République doit être un homme propre, quelqu'un qui n'a jamais volé l'argent du Sénégal, quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le Sénégal, quelqu'un qui a l'expérience et l'amour du pays, mais quelqu'un qui dit la vérité, mais quelqu'un aussi de droit. C'est la raison pour laquelle je pense avoir le meilleur profil pour porter ces vers les changements auxquels aspire notre jeunesse qui aujourd'hui demeure dans une situation extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle le monde rural, les travailleurs, tout le monde est menacé aujourd'hui dans notre pays. Et la charité de la vie constitue actuellement un nœud gordien pour l'ensemble des populations de notre pays. Toutes ces problématiques ont trouvé des solutions à travers le pass que j'ai proposé au peuple sénégalais. Et je pense que les Sénégalais vont y porter pour le candidat Malick Gakou pour changer le Sénégal. que la tête va être une bonne Mais c'est de bonnes propositions de façon qui vont dans le bon sens parce que beaucoup d'observateurs pensent que faut au moins un mois euh, avant le mois le, avril euh, pour faire le changement nécessaire afin que le président puisse passer service le avril. C'est la raison pour laquelle Nous pensons que toutes ces idées sont, doivent être mises dans la corbeille à idées de cette réflexion que nous allons entamer avec le gouvernement pour que la date retenue